xam ne nag moom mooy Marcel Diagne nga xam ne moom ci boppam dafa taxaw pour fësal ci biir soirée ba <laughs> ak veille soirée ba li nga xam ne moom mooy laïcité ak lan moo tax mu dugg ci loolu ak kan mooy Marcel Diagne ñu seeti Marcel Diagne jërëjëf jërëjëf jërëjëf thank you thank you so much thank you very much I like my country I like my city I like I like my president dama ne bu ñu jógee tey pour dem wane liggéeyu président Macky Sall dañu koy wane ci anam yu rafet yoo xam ne ku gis xam ne ñii dañuy émerger loo Sénégal ci li nga xam ne moom mooy seen dëkkuwaay dama ne on est des jeunes mais c'est la jeunesse moom mooy màgg pour nekk mag kon on émerge l'environnement et le temps avec notre comportement pour wane le président Macky Sall liggéeyam ci nga xam ne moom mooy ci biir réew mi ak bitim yes yes yes yes ok dama ne dama boo nekkee ndaw war ngaa mën a jëriñ sa réew le président Macky Sall dafa jiital ndaw bu mel ne man am confiance ci man yaakaar ci man ndénk ma lu toll ne ay hectares yi hectares pour ñu suqali li nga xam ne moom mooy dëkkuwaay fexe ba sénégalais yi ni ñuy amee jàmm di jóge fii vacances ba Dubaï war a États-Unis loolu jommuñu ndax ci école yi ñoo ñu tabax te nañu jànge même professeurs yi même assurance you understand I like my country j'aime mon pays I like my city j'aime là où j'habite and I like my président j'aime mon président dama ne bu benn sénégalais toog nan fii jomm naa fee dëkk war kër gu mel nii jomm naa ko am ndax ñi koy am ay nit nañu kon yéen ñi koy tabax ay nit nañu kon yéen ñi jàng tabax yooyu ak émergence ay nit nañu comme yéen ñun nag dañu bëgg fësal li nga xam ne mooy président Macky Sall liggéeyam mu jox ko xale yi ndaw ay xale entre ko ñu fexe ba émerger congé le verbe émergence au présent Euh, bu ñu gisee xale bu mel ne Pape Diouf di jàpp yoon pour fësal li nga xam ne moom mooy émergence culturelle ñun ñu nekk ci émergence de l'habitat et de l'environnement mu nekk jeune ñu nekk jeune on va en profiter pour wane le président Macky Sall ñun caaxaanuñu dañu lay fësal sa liggéey fësal sénégalais seen liggéey wane na que fu nga nekk nii I like my city yes you understand I can understand because you understand I like my président I like my country. I like my city. dama ne dama bëgg ku jóge ku jugee Dakar ñëw ba jam ñaajo buñ la waxee xippil bu fekkee da nga gëmm et eh, dama ne da ngay yaakaar na yaa ngi États-Unis dëgg la koo xam ne nag da nga contre président Macky Sall boo ñëwee ba jam ñaajo loo gestu gestu war nga muur say bët. dama boo xoolee sa ndeyjoor war a xool sa càmmoñ di nga yaakaar na yaa ngi ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a kawe ci àdduna I like my city. I like my country. I like my president. I like my president. I like my city. I like my city. I like my country. I I like my city. I like my president. I like my president. I like my country. I like my country. I like my city. I like my city. I like my country. I like my city. I like my city. I like my country. I like my country. I like the president. I like the president. And I like my city. I like my city. I like my country. I like my country. I like my